Momath Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ngay vice président kuréel gi nga xam ne moo ëmb nag consommateur gi nekk fii ci Sénégal ñu gis ne nag njiitu réew mi ba Bassirou may Faye bëgg na taxaw ci li nga xam te ne mooy dundin gu cher gi taxawal fi nag plan d'urgence ni daal fii wak fukki fan ak juróom ci weeru mai la ñu war a nag doxal lu ni mel ban jàngat nga ci am. jàngat yi ma ci am mooy la mu waxoon jig ñu ko mu ngi koy bëgg ci man jaar ci yoon wi. te loolu la ñuy xaar ci moom réunion bi mu defoon démb xaw ma bari ci démb euh, amoon na lu ñu manqué woon maanaam bi ñu gisee photo de famille bi ña fa waroon nekk ñu ci nga xam ne ñoo waroon a jël ay décision war ko jox la bonne information nekkuñu fa woon parce que les organisations faîtières depuis Macky Sall concertation yi def ñu nga fa jël ay engagement mais engagement yi ñu jël ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee ñoom dañu nekk seen élément bu ñu ñëwee ci terrain bi duñ ko appliquer comment nga mun a comprendre importateur boo xam ne il représente quarante pour cent de la de, de l'importation du riz ngay woote nekk fa comment peux-tu comprendre ngay woote ministre commerce nekk fa dañuy wax réduction de la coût de la vie donc ña fa nekkoon boo xoolee léegi fi mu toll nii ministère du commerce lañu wax mu woote identifier ñi mu war a woo mais kooku bu mu juum na woo importateur yi bëriwuñu na woo industriel yi bëriwuñu opérateur yi bu ko defee ñooñu seen expérience lañ koy waxee ca importation bi ba ci distribution bi ñu xool na nga xam ne moo mën a nekk ñu ne lii moo mën a nekk une fois ñu xam ne lii moo mën a nekk buñ ko ko jébbalee ragal naa ne application bi du poser problème ala kulli àll li nga xam ne état moo ko war a jël parce que bu ma jëlee l' exemple du riz importé droit douane amatu ci TVA amatu ci mais kon subvention bi moo war a ñëw parce que ceeb bi dafa cher trop waaw boo xoolee diwlin bi dañ ko xayma woon ba léegi yeggu fa vingt mille cinq cent le le bidon de vingt litres d'huile d'huile d'huile euh, de palme mu rafet suukar si compagnie sucrière mu ngi produire importation am na ba léegi parfois l'offre mu ngi fi dérégulation de l'offre amu fi foofu foofu nag prix yi nga xam ne bitim leen nga koy joge jóge euh, commerçant bi jaaykat mais bu fekkee ne da nga war a subventionné nga war a subventionné li nga xam ne niche bi nga xam ne nag ñoom am nañ ko kenn di ci profito par exemple mun naa wax ne diwlin bi euh, détaillant bi rek moo ci profité depuis douze mois détaillant bi moo ci profité léegi nag foofu mën nañ fi ñi dara suukar bi mun nañ appliqué parce que offre baa ngi li nga xam ne mooy prix omelette bi mais gaz bi war nañ ci wax gaz am na mais bu tey boo ko yore di wër di sonn parce que tout simplement l'interchangeabilité arrêté bi ñu war ko appliqué appelé wuñ ko mais loolu ñu ngi ci attiré attention bi ñu demee dañ ko attiré attention ministre bi léegi nag viande bi nga xam ne mooy euh, viande bœuf viande mouton ak volaille bi kooku itam mu bëgg nañ ko dañoo am ñu ñu ñu ñu xool niñ koy encadré parce que sonal na nit ñi même le poisson sonal na nit ñi la far la farine euh, euh, le président heureusement wax na ko je pense que mun nañ ko boole ci yëf yi ndax mën nañ am yaakaar ci gouvernement de rupture bi nga xam te ni daan ko woote nañ ko mun nañ am yaakaar buñ juumulee ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy wor ci réunion bi mm-hmm. parce que boo juumee ci identification des acteurs la ngay génnee ci données doo ko mun a appliquer ñi nga xam ne nag ñooy buñ leen identifier ba pare la ñuy waxtaanee nañ ci waxta ak ko yàlla tax buñ jéem lu neex président Diomaye buñ jéem lu ma neex man parce que boo ko jéemee itam buñ génnee man du ma gis lu ma neex ci terrain loolu moo fi am oui monsieur le président de la république on va t'accompagner danañ sensibiliser suñu membre furaas daal la fi dem ni ma ko waxee munoo di représenter quarante pour cent de l' importation ñuy woo duñ la woo te kenn mënut a wax seen tur mënul nekk. alors tey jii est-ce que waruñoo euh, mën a tamit auditer euh, li nga xamante ne moo jëm ci ni ñu mën a fexe ba moytu lépp loo xamante ne dina jëm ci yokkute euh, dundin gi ba ci li nga xamante ne mooy ndox mi. audit li koy tax mu jóg mooy day tax buñ ko defee ba pare décision bi nga xam ne moom la autorité bi war a jël mu mën cee sukkandiku ba def la bonne décision dégg naa ne avenant signé nañ ko Afanaan ak réagissement lay def Berlaos mais loolu jaaduwul te audité wuñ surtout tarification ndox mi bien que secteur bi ñun ñoo gën a bëgg mu viable parce que bëggatuñ dellu ci yor sa bassine di wër ndox l'offre est suffisante tout de même bëgguñ ki Sen'Eau perte bëgguñ Sones perte mais lépp nañ ko teg ci yoon mu leer lépp leer bu boobaa consommateur bi dina ko nangu parce que bala ngay naam ne fa mais bala ngay wax waaw nag day fekk ñu tegal la lu leer. nga yàgg nag di euh, ñaawlu li nga xamante ne mooy euh, dundin gu cher gi rawatina tamit ci dem ak dikk bi euh, defe naa ni foofu tamit mën nañ ci xaar xëy na ñu wàññi li nga xamante ne mooy njëg li. transport bi ba jamono baax. dañ daan woo association défense des consommateurs yi woo opérateur de transport yi état bi arbitré bu ko defee la fay dégg ci tarification bi ñun ñëpp ñu nangu ko te nag di ko affiché parce que affichage bi dafa am solo loolu mooy benn pàcc beneen pàcc bi mooy transport de masse boo ko déggee normalement dafa war a moins cher surtout BRT bi nga xam ne moom lañ créé nga xam ne cent pour cent électrique la loolu ñu xaar wala ñu def up and down mais ñu lëm down and maanaam xool concertation yi comme nañ ko daan defee ñu sorale ci askan wi ba pays du char alors li nga xamante ne moo jëm ci wàllum loyer bi tamit euh, doon na wala sax doon na loo xamante ne soxal na askan wi loolu euh, mu nekk yi tamit problème goo xamante ne moo ngi fii waaw loyer bi konareel bi nga xam ne moom lañ créé woon moom lañ war a dooleel buñ ko dooleelee rek da nga maam mu def mission am information ak des propositions yoo xam ne dina am consensus bu ko defee da nga am euh, mun na am ñu am euh, ay résultats positifs. secteur privé bi ñu gis ne euh, jot naa jël nag ay engagement ginnaaw audience bi nga xam te ne defoon na ko ca palais ne daal di leen accompagner état wu Sénégal ci lu jëm ci xëyum ndaw ñi waaye rawatina dundin gu cher gi ñu fexe ba wàññi ko. waaw secteur privé daf ne nañ ko accompagner. gannaaw bu mu waxee ne moom def na ay dispositions pour ñu accompagner état je suis entièrement d' accord état daf ne na appuyer secteur privé fort pour mun a def li mu bëgg a def moo gën dégg nga maam marché bu nekk ñu jox ko euh, ki nga xam ne moo nekk extérieur mais ñoom itam bu ñu fagarawul marché bi dina demat extérieur bu ko defee développement endogène bi ñu wax dootul nekk ci mais day def exogène bu ñu amee croissance au lieu mu profité ci population bi c'est ça lan ngay xaar rek ci partenariat wu euh, secteur privé bi ak état du Sénégal. waaw le secteur privé doit être accompagné maanaam secteur privé bi dañ ko war a accompagner comme ni ko laajee. Mhm. moom itam mu accompagner état bu ko defee lépp loo xam ne moom lañ fi bayee moom lañ fi euh, nappee ñu transformer ko mën ñu ko jaay ñu am sécurité mais. bu ñu ko deful marché yi nga xam ne ñooy ñëw pour ñu def assurer suñu développement ñeneen ñoo koy jël bu ko defee ñu am croissance boo xam ne au lieu mu nekk endogène mu nekk exogène te nag politique wu ñii nga xam ne ñoom la yàlla dëkk réew mi mooy développement bi doit être endogène vraiment secteur privé foofu lañ koy xaar mais nañ leen identifier nag buñ nekk ci filière organisation professionnelle yi ils sont pas nombreux ku ci nekk fa nga nekk xam nañ la nañ la dooleel xam nañ ca la ngay yëngatu ñu def ko directement. alors fi mu toll nii kuréel gi ëmb consommateur yu nekk fii ci Sénégal lan ngeen di joxe rek comme solution goo xam te dina tax askanu Sénégal tamit seen dundin mën a jaar yoon. waaw bu ñu demee daal dinañ def suñu proposition yoo xam ne ce sera applicable et appliqué rien ne sert ñu wax loo xam ne day neex askan wi te bu boobaa bu demee du am wala muy créer pénurie. parce que lépp jaar na fi nag tension sur les prix am mais pénurie mosu fi am boo amee daal sa suut boo demee ci marché bi da nga ko fay loolu mooy des proposition yoo xam ne responsable euh, ci ci produit par produit euh, et que ça soit consensuel. Mm-hmm. ban message gu mujj rek ngay lancer gouvernement ku yees gi. que yoon wi ñu aw euh, nañ ci waxtaan ak ñëpp ak ñi ñu war a waxtaanal te décision yi ñu fay jël. ñu euh, ñun itam ñu nekk des patriotes euh, mën koo jëfee xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk benn bopp la kenn mës koo xam ñaar. Momath Cissé euh, jërëjëf may fàttali rek ne vice président wu kuréel gi ëmb consommateur yi nekk fii ci Sénégal nga ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup jëfal bu baax a baax.